asalaamaaleykum wa rahmatulah seen doom seen xarit Baye Ndialax moo dellu si waat yéen tey fii si télévision Rapadio tey na ma fas yéene woon a waxtaanee tomb bu am solo boo xam ne daanaka gars dañ koy ragal a waxtaanee muy ëmbalante bi nekk ci dëkk bi. kilifa diine yëpp kenn waxatu ci waaye man na leen lenn naa ci wax am na yoo xam ne duma ko mën a seetaan àllarba bi passé rek laa daje benn waaju gàtt te ñaaw mu may nettali ni mu ëmbalee benn femme ma commencé di si sànni kàddu mu naan ma teyuma ko daf ma rëcc tubéy bu ñu sentir ba mu dëgër nam la mën a rëccee. balaa maa àggali lu may wax yaay ji ñëw naan ma xam nga xale yi bu ñu bëggantee seytaane da ciy dugal loxo seytaane defu duul laa la wax ponkal mu yambar moo xam ne jot a jël soxna bañ a takk nekk ci biir dëkk bi di caxat caxatee xale yi jigéen ñi musiba boo ci jëlee yaa ko yóbbee sa bopp li ma ci gën a naqari na mooy waa ji daf ma ne amul métier te njàngam soriwul ma ne ko ne nag liir bi nar a judd si musiba wi nooy def ak moom mu commencé naan ma dama bëgg a jàng islaam diine ji lu mu ëmbal xel nangu la ne kay nga tuub dellu suñu borom jéggal la waaye terewul ëmbal nga rek góor bu am jom bu demee ba am lu muy sant si yaramam loo xam ne attanatu ko day takk soxna ndax jigéen mooy mottali góor boo ko deful nag gàcce manta paase nga ëmbal fi xale bu jigéen yàlla may ko boppam ngénte li jot nga sol sa xaftaan di xëbër xëbër yi mel ni mbaam bu dof naan da ngay dem fekkee wat ji am na yoo xam ne nag duma ko fi nekk di ko nëpp nëppal mbaa di ko wër wala ma koy laam-laamee dama leen koy wax direct ngeen dégg ko ndax ragaluma ci kenn bu ko defee ma emale kàddu yi foofu di ñaan yàlla dëgëral suñu waxambaane ñaax leen ci takk soxna yàlla may ñu xoli muñ ak moytu musal ñu si bët làmmeñ ak cat jër ngeen jëf mbokk bi ba beneen yoon incha allah